mbay xibaaru takkusaan si asalaamaaleykum. Mamadou Mohamed Ndiaye. Omar Cyril Touré di caat ca commissariat central gamu fanaan fa la yendu tey ji ba léegi enquête ba ma ngay wéy moom caat moomee bokk ci mouvement Y en ay ñoñom ña nga toog kon ca fële nga xamante ne ji moo di ca DIC di euh, brigade des affaires générales di ko fa xaar moom caat préfet bu Ndakaaru xëy tey jii ab janok taskatu xabaar yi ngir indi leeral moom Ibrahima Sakho dellu si waat ci euh, manifester politique yi fi amoon ñaar fukki fan ak ñett euh, ci weeru sulet mu am lum ca leeral benn di administration bi nekku fi nekku fi rek lu dul manifestation bu ñu bëgg amal mu daal di koy tere beneen bi ci toppit mu ne dootuñu nangoloti kenn manifester goo xamante ne ji on h ci guddi lay doon jëm ca euh, kanam. intersyndical gémb liggéeykat yi ci collègue yu yi ñoo ngay sàkku ñu jëfee loi aju ci seen statut di xoolaat seenu nekkin syndicaliste yooyee gis ne daal bu ñu ci waxul danañu indi cooxe ci doxinu collectivité locale yi kañu ci joxat bi baaraamam tuumam moo di Alioune Sow jëwrin gi leen jaboote taxañum xabaar bàngoog mbokki des na ko tàqar ñi toftal ci tàggat yaram ànd ci ak Baye Ndate Diop taxaw seetlu Babacar Fall ni ñu ko baaxoo talaata bu nekk jëm ci dundinu askan wi yéen a kaay gi El Hadji Ahmed Aïdara laa tolloole daañu ànd ak yéen ci fait du jour soo ko tàggu génn ci xabaaru tàkku sant si Xaadim Ndiaye nekk ci machine Sadou Mohamed ci kàddu gi mbokk maa ngi leen di nuyuwaat di wéy di rafetlu seen ànd ak rajo Futur Media wutali dikk division investigation criminelle man Touré Niang maa ngi lay nuyu. maa ngi laa fay Mamadou Mohamed Ndiaye. Mm, yaa naa maristi yu foofee xam nañu fa caat nekk léegi. ah non nag xamaguñu ko ba tey daanaka sax Fadel Barro moom si boppam moom moo jël kàddu gi léegi mu wax ne gouvernement bi mooy responsable si lépp lu jot a xew parce que kii di euh, caat da muy feebarul woon ci xel feebarul woon ci nii ci yaram amul woon dara loo xam ne jot na ko parce que ñoom ci suba tey ñu ngi xaar fii gisuñu benn yoon caat ñoom ci seen information dem nañ seet police centrale waaye nee nañ wax dañ leen ne nekku fa fi mu toll nii nag fii la añee boo leen gisee seen bët yi ngi xonk cuur dañu sonn depuis démb ñu ngi fii am na ñenn ñoo xam ne sax coono bee ngi commencé di yëg waaye ñoom nee nañ quelque soit alpha daañu fi toog daañu fi nekk tant que gisuñu caat ak itam ñuy wax rek ne mouvement Y en temps yi dafa bëri ñu nga xam ne dañ leen di sonal wala boog dafa am ay détracteurs ba tax na ñoom nee nañu na ñëpp nekk serein bu ñu xeex bu ñu cooki bu ñu ànd ak violence te itam bu ñu añee ba pare ak bu ñu naanee ndox dafa am ñëpp ñuy circuler mu traîner wu fi kii traîner wu fi ñoom daal nee nañu ci yar ak teggin ci autorité yi nga xam ne ñëw nañ fi mun nañ fi nemmeeku Macky Sall Cheikh Tidiane Gadio Mamadou Euh, Lamine Keita euh, Diallo Mamadou Lamine Diallo bu mouvement Tekki ak maître Ndeye Fatou Touré ak itam euh, dans ce fond mouvement M23 daal ñëw na fi loolu la ñu mën a nemmeeku Mamadou Mohamed Ndiaye. Mantouré xabaar yi ñu mujjlee mujjee jot kon ci mbirum caat moomee jàppale ne commissariat central ga mu fanaan biik foofee lay yendu enquête ba ma ngay wéy ñu ko fay dégloo mm, njiital Amnesty International di Seydi Gassama di ñaawlu doxin ñaari ñaari doxin yi yoon am ci réew mi mu jàpp ne daal caat du woon dikk moo ko waroon a wol ak foofe ndax it yoon ak na muy doxee moom la mbir kon yoonam waru caa nekk moom njiital Amnesty International section Sénégal di dànkaafu Sénégal ci bépp toroxal ba ab xor ñoñal di torture boo xam ne euh, ña ngi koy nësëra def ci at moomee ñu téye ci seeni loxo la mu bëgg sax moo di ñu daal di koy bàyyi mu dellu këram moom Thiat Seydi Gassama ci jokkam ak Antoine Diouf. La lecture que nous en faisons c'est simplement le deux poids deux mesures de la justice sénégalaise et euh, de l'instrumentalisation de la DIC qu'on veut transformer en police politique. ñu ngi ñaawlu convocation bi nga xam ne moom la police convoqué Thiat euh, ndax d'après dañ ko convoqué parce que dafa yëkkati woon ay kaddu ci euh, daje bi nga xam ne moom si amoon euh, samedi ba li passé ñun dañoo considéré kaddu yooyu comme kaddu yi nga xam ne mënuñu leen considéré comme diffamation wala boog injure ndax kaddu la loo xam ne ci mbirum politique surtout ci période préélectorale façon kaddu yooyu day faral di am te du Sénégal rek soo demee France di nga dégg kaddu yooyu soo demee Amérique di nga dégg kaddu yooyu kon convocation boobu ñu ngi koy ñaawlu parce que convocation la boo xam ne jubul dara loolu intimider Y'en a marre mi nga xam ne dañ fi jóg pour revendiquer ay ay droits citoyens ay droits citoyens te revendication boobu dafay gêner gouvernement bi gouvernement bi maanaam euh, pouvoir libéral bi revendication yu daf leen di gêner moo tax tey ñu koy convoquer pour di intimider leen aar leen fexe ba ñu kase leen. ñu ngi bugg a wax rek que le 23 juin passé dañu jàppoon waa mouvement Y'en a marre torturer leen. ñu ñaawlu ko ba léegi procureur wax ci dara te daf ci waroon wax dara ndax yoon daf ko sant pour mu wax dara bii yoon ñu ngi mettre en garde la police contre toute torture contre euh, Tchad di wax tamit Abdoulaye lu leer Tchad suñ ko dencee kaso nañ ko considéré comme prisonnier politique te ci biir àdduna bi yëpp nañu yëngatu pour ñu mun ko bàyyi de façon urgente et façon inconditionnelle. Seydi Gassama njiital Amnesty International laaj ci ci fare ci diwaanu Sénégal Ibrahima Sakho préfet bu Ndakaaru tey jii xëy ab janoog taskatu xabaar yi di fay leeral benn bi moo di bu kenn jàpp ne administration bi dafay nekk rek ku ne day manifester mu ne la du ca dal préfet ne loolee amu ca ci ndaje mi mu seqoon ak xabaar yi te dellu si waat na ci manifester politique yi fi woon ñaar fukki fan ak ñett ci weeru suba ga m ngoon nga parti démocratique sénégalais eh, ci kenn manifestation boo xam ne 23h jëm kaw lay doon Aminata Goudiaby manifester droit constitutionnel la waaye nag liberté bu gis am na engagement juridique loolu nag préfet bu département de Dakar moo ko xamle moom Ibrahima Sakho nag indi na ay leeral ci ñàkk déggoo gi am léeg ci diggante administration bi ak ñenn ci citoyen yi moom nee na booy déclarer sa manifestation yamul ni rek da nga koy yëgle dafa am lu mu laaj ndax da war a joxe sa tur sa sant da war a wax li tax ngay marche nu marche bi war a mel ne ñoo organiser marche boobu mu Dakar bi di wax ne nag fii ci Sénégal dafa mel ni manifestation yi nga xam ni amul autorisation moom la nit ñi sawar gannaaw ba ñu ko laajee ci événement yu 23 juillet yi moom nag nee na heure yi ñi nga xam ni ñoo di manifestant yi ñoo ko tànnaloon seen bopp maanaam xam ni ñoo bokk ci mouvement du 23 juin ndax nee na ñooñu sax ci seen coobare bopp la ñu jëlee seen rencontre boobu ca place de l'indépendance yóbbu ko ca place de l'obélisque Ibrahima Sakho di wax ne na nag dootul signé ci benn manifestation boo xam ni ci guddi lañ ko def rawatina bu weesoo 23 lu jëm ci jàng cosaanu diine yi am ci yenn quartier moom nag sore wu dafa wax ne rek daañu leen xoolaat bu baax. Aminata Goudia bi intersyndical gi yëmb liggéeykat yi ci gox goxaat yi mu di travailleur collectivité locale ñoo ngay sàkko ñu jëfe loi bi jëm ci xoolaat seen statut di nekkin syndicaliste yooyee xam le ne bu ñu wutul ci ñoom ay pexe ki saafara mën nañoo indik euh, sooxe sax jëm ci doxinu collectivité locale yi am na préavis de grève bopp euh, danañu ko déposé suba jàmm ngir soobu cib géréw Sidiya Ndiaye moo yore seen kàddu ñu déglu kook Charlotte Lalane wàll jéem nañ cee jokkoo ak Alioune Sow jëwriñ gi ñu dénk décentralisation ak collectivité locale jokkoo ba antoogul ña ko jege lañu ñu xamal moo di jamono ji moom Alioune Sow mi ngi cib meeting. RFM. ci RFM. toog doggi courant yi dikkati na bari nay quartier yooyu askan wa danañu toog ay waxtu yu bëri du ñu am courant fu ca mel ne e, ca e, banlieue bu Ndakaaru ak fi nga xamante ne ji moom mooy Wakaam daanaka toog nañu ñaar jàpp ñetti fan amuñu courant ñu nekk lool ci jafe-jafe ca banlieue ba nag far la leen courant ba di yàqal ci seen liggéey dañ ko sax far tàyyee wax Salif Sow. coupure courant yi ba léegi ñu ngi am. da ngay toog ci cent cent franc sax doo ko doo a mais léegi moom tere na parce que tëdd ay deux heures trois heures temps lay. client nga waa Sénélec yi kontaan ñu ñu dañoo mer Alelo menuisier métallique la ñu ngi ko fekk ci bunt atelier wam mu taxaw defut dara nee na li nga xamante ni da ko waxante client yi lu ci ëpp daanaka du ko def. coupure courant yi ñoo fi jaarati. ndax parfois da ngay jënd ay aluminium yoo xam ni da koy teg fii war koo dagg te su nekkante ne courant dafa koy toute la journée coupé doo ko dagg te du mën a fanaan si biir léegi loolu daf ñuy indi ay problème wala ay tardement de liggéey daal. te nag du plan tàkkal moo koy génne si jafe-jafe bii. ma ñëw du Dieng moo gisee ni nu mel moom benn salle de jeu. la yore chaque jour courant bi day régulier chaque ba léegi nii a yéesal coupure d'électricité ay at a ngi nii li nga xamante ni mooy jafe-jafe coupure courant bi gouvernement bi di seet nees koy lijjantee wante ba léegi daal tëlee ci kanam askan wi nga xamante ni courant lay laaj ba léegi Salif Sow Géejawaay rajo Futur Media. examen yi BFM yi résultat yu njëkk tàmbali naa wadd nag démb seetlu gi nag moo di ca diwaanu Tëngéej moom résultat yooyu la yàlla xam doy na ne ci tour bu njëkk bi résultat yi doy na war téeméer boo jël nee nañu fukk ak juróom ya ñoo ca am la ko sabab ñenn ci njiiti école di ca joxe seen xalaat Ousseynou Thiam. di ñeenti junni ak juróom-benn fukk juróom juróomu yoo xam ni présent nañ juróom-benn téeméer dong ci am lii di BFM ci lii di premier group bi mu doon daanaka téeméer boo jël fukk ak ñeent yoo xam ni rek weesu na tuuti ñaareelu groupe bi daanaka ci junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent téeméer boo jël ñaar fukk ak juróom-ñeent rek ñoo ci admis mu doon nag ay résultats yoo xam ni daanaka baaxul dara ci lii di commune de Rufisque ci kàddu lenn chef d'établissement yi jàpp ne bu dee sax yenn écoles yi seen lii su njëkk xaw naa Nicolas Diouf di principal bu CEM bu Matar Seck. 14 virgule 60 pour cent euh, pour le premier groupe jàngat bi ma ci am daal mooy euh, wax dëgg mënoon na génn loolu résultat premier groupe. bu dee 14 pour cent wax dëgg loolu euh, faible na. loolu daal mënoon na génn loolu daal. ci kàddu chef d'établissement yoo xam ne nii interrogé na leen ci résultat yooyu nga xam ne nii daanaka baaxul dara ci lii de Rufisque commune ñoom nag dañ ci joxan baaraam lii perturbation scolaire yi maanaam grève professeur yeeg yu ni mel waaye tamit ñàkk motivation yii di xale yu góor yi nga xam ne nii daanaka jàng nekkatul seen xel lu ni mel sax gannaaw pression boo xam ne bii ñii di seen wéyjur ñu ngi koy def ci ñoom ak lii di yi ki doon jokkoo ak yéen fi ci Tëngéej di Ousseynou Thiam ngir RFM tàgga jërëm ñu dalal Baye Ndata Diop maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Mouhamed. wàllu football Sénégal ak Maroc war daje fukki fan ak benn ci weeru août jongante xaritoo la entraîneur ba siiwal na ña cay football. ni ki tey la ko Amara Traoré doon def ci fii di WDN bi ci ab restaurant bu nekk foofu waaye lañ ca jàpp rek moom mooy liste bi ah, am na ca ah, ay absence yu mag a mag ci demee ni Mamadou Niang Issa Dia Souleymane Diawara ak ñeneen naam ñii su fekkee dañoo am ay gàllankoor ñeneen ñi dañoo am ay sanctions yoo xam ni dafa gàllu ci seen kaw ba mënuñoo bokk ca jongante yooyu waaye gis nañ tamit waatu kenn si euh, Diomansy Camara ak euh, kii di Jacques euh, Fati waaye tamit am na ci ñu yees ku ci demee ni Moustapha kase bu ñaari tali ak kii di Pape Diamanka doomu Sénégal ba nekk ca Espagne ca équipe bi ñu duppee Vallecano waaye gannaaw ndaje ba kii di Abdoulaye Sarr ñëw na ci ñi nga xam ni moom mooy suñu gaynde yi naka la ñu doxalee wàlluk éliminatoire yooyu jëm ci wàllu Coupe d'Afrique bi dañ Pape mais defe naa bu fekkee ne dañu bëgg a léegi séentu plafond ba am na loo xam ne du mate moo tax dañ leen di ñaan ngeen bañ a yàkkamti xam ne yàlla ñuy defar résultat ndax def nañ juróom-ñeenti jongante te ci juróom-ñeenti jongante yooyu am na ay ndam yu bari yuñ ci am xale yi dugal ci ay bi yu bari te liñ ci jël bariwul defe naa suñu tollu xayma jotagul ni mu ko waxee am na weer boo xam ne buñ fa tolloo maanaam jeexal li ñuy wax éliminatoire yi ci Coupe d'Afrique dinañ toog waxtaan bu ñu waxtaanee ñu xayma seet ba ñu commencé ak ba foofu fan la ñu yem bon nag loolu tabax boobu du deñ si la ñu dëkk parce que loolu mooy xëy na indi ay maanaam li ñuy séentu ay résultats yu baax ëllëg ndax Sénégal dañu tàmm toujours gaawantu te bu ñu gaawantoo bu yàqoo ñu ne ñu defaraat defaraat boobu jurul dara soreetul bu ñu àggalee ñu toog ñu waxtaan ndax liggéeyu nit la rek du léppay baax li ci baax ñu jéem a seet nuñ ko dëgërale li ci baaxul ñu dingi ko def leneen. ko di Ablaye Sarr. national bu Sénégal ci euh, lii di sélection US euh, Moustapha kase ak euh, kii di Pape jamonka Amara Traoré dina ci dellu si ci ay leeral ci kàllaam nasaraan gannaawu football ñu wax ci wàllu. xam nañu nag ki nga xam ne rek euh, moom mooy roi ci wàllug euh, basket ni ki ci saison ren bi euh, mi ngi wuyoo Ibrahima Mbeng moom ni ki démb gannaaw lañ ko tabb moom nag moo nekk ki nga xam ni moom moo gën a xarañ ci saison 2010 2011 moom mi ngi bokk ci AS Douane mi nga xam ni moom moo jël champion du Sénégal ci wàllug góor gi moom kii di Ibrahima Mbeng wax ni liggéey bu am solo la def daal moo taxit ñu jox ko raaya googu dañ koy déglu ci micro Cheikh Tidiane Diagne alhamdulilah rabil alamin kontaan rek kontaan quoi mënu ma wax sax fu mu toll nii billaah maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax li si yonent bi sant samay ñaari waajur di leen ñaanal fa ñu nekk yàlla na leen gënal fi ñu jóge yàlla na suuf seen seen naa ko damay liggéey nag damay ndax li doonul benn genre revanche non defuma ko genre revanche quoi parce que foofu moom damay ni question de choix la xëy na peut-être après le temps nous jugera quoi. Mohamed ñu jeexale wàllu làmb rek di xam ne ni diggante Elton ak Tafatine naam dina am euh, samedi ji di ñëw ci stade Demba Diop kon gàllankoor yañ ci doon euh, xalaat ni euh, lii di finaalu basket ba dina am lum ci gàllankoor loolu dara mujj ci am basket ba dina am waaye tamit lamb ji dina am Mohamed. jaajëf mu ne woon tàggat yaram ak Baye RFM gëstu bés bi. ko baaxoo talaata bu nekk ab taxaw seetlu la ñuy def jëm ci dund. Babacar Fall. PDS bi amoon keroog samedi musiba la jéeya la ci dundunu askan wi ci fànn yu bëri nag bi njëkk mooy millions million millions yu bëri yi nga xam ni jël nañ ko ci xaalis kon def ko ci bés boobu ngir rek dajaloo ci VDN gi di wane ni dama am yi nit PDS ak njiitam lay wadd jël xaalis bu bëree noonu di ko dépensé. dépensé yu wu ñàkk kersa googa ndax jamono yi ñu jël xaalis boobu di ko wasaaree ka pasar pasaree ka jënd ay nit jamono jooju ay étudiants ñi ngi nekk fii seen njàng di waaj a jeex ñu war leen a jox seen ndimbal ak seenu bourse mënuñ caa jot jamono ji nga xam ne laay wadd ki gaayam ñi ngi jël xaalis boobu di ko pasar pasaree ay doomu sénégalais yu nekk kaso ñu waraloon atte ci wàllu cour d'assises ca Ziguinchor ak Ndakaaru ñi ngi doon toog di xaar ndax rek fanweeri million moo waroon a tax ñu mën leen a atte xaalis amul ci réew mi ñu ne te PDS a ngi ne jël xaalis bu nu toll di ko wis ca VDN ba Ablaye Wade ki gaayam tam jamono ji ñuy yàqee xaalis boobu ci dëkk dëkkuwaay yi nga xam ni mbër dafay faral di lool bu tax ñuy wax bu nguur gi jël ngir ñëf a dëkk bañ a dundaat loraange gi nga xam ni juróom-ñaari at a ngi nii ñu koy dund ci mën mi te gisuñ saafara boobaak léegi beneen fànn bi tax meetingu PDS bi doon jéye ak musiba ci dund askan wi mooy doomi Sénégal yi ñu jël dugal ci ay kaari Njaga Njaay ñu jóge fu ne ci réew mi ngir feesal meeting boobule waaye nag ñi nga xam ne ñoom lañ dugal ci kaar yooyu jox leen xaalis bu leen kenn mere ndax ñu bëri ñuñ dugal ci kaari Njaga Njaay jox leen xaalis ñàkk pexe moo leen tax dem ndax ñu bëri ci ñoom seen loxo jotul seen ginnaaw ab Ablaye Wade ak gaayam nag profité ci seen ndóol googu tàllal leen i billet ñu dem ca te ku ne xam na ne gor day goor ci dara ñu bëri ñi feesal miitingu PDS bi keroog samedi ñi ngi jóge ndax am problème mu dépense ñeneen ñi ñu ngi jóge ci àll bi ndax sàq yi fi mu toll nii amatul pépp te kenn xamut lu nawet bi di joxe kon ña nekkoon ci meetingu bi ay sénégalais yu ndóol yoo xam ne la nguur gi daal profité ci seen ndóol googu ngir diri leen indi leen foofa di ndóol goo xam ni nguur gi ci boppam moo leen ko teg ndax yorin wu bon wi ñu yoree réew mi kon xam nga ni ku am problème mu ndékki mbaa añ bu la waa PDS ñëwee tàllal xaalis bu weex tàll boo ko jëlulit dina jaxase sa xel waaye nag attention li Ablaye Wade ki gaayam xamul mooy ni gaa wolof dani ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa waaye ci wàllu woote léegi senegal koo jox sànqal ngir jënd ko dana ëmb sànqal sa de waaye du ëmbaale kersa gi dalay ñàkkee kersa kay ca biir mbañ gàcce ga ca bisu woote wa Babacar <laughs> Fall jërëjëf ñu yegsi ci fait du jour wutali diwaanu Jox di dëkk bu nekk ca Fatick euh, sàmm ya foofee la leen sonal moo di càccum jur ga fa am daanaka lu ñu fa yeew bu guddee Samba Boye jaar fa yeew yeewi ko ñoo ngay defi gëstu nag di seet nu ñu tegee loxo Samba Boye waaye ba fi mu nekk nii lëf la jurul dara Youssouf Bodian. 6 heures du matin ba ay 3 heures ñoo ngi wër finalement gisuñu dara fii yëpp wër nañ ko gisuñu dara. sonn na ginnaaw bu mu doxee bëccëg bi yëpp Abdoulaye Ndour ak ay ñoñoom doxoon dem ci ay dëkk yu bëri ngir seen fas yu sàccoon biig waaye ñibbisi te gisuñu dara. dañoo mobiliser wu ñun ñëpp jóg waa jóg yëpp ñëw jàpp ci quoi ñun ñu dugg ci biir village yi di laajte ndox nañu fu sori dem nañu fi ba côté Kaolack ay mbari ji bi yooyu dem nañu foofu bu ñu ñëwee laajte mu neen vraiment jaaree ñu fi quoi mais bu ñu fi jaaree dinañ leen ko won et puis jox nañu marque fas yi encore ak seen i numéro quoi ak melokaanu fas yi nañ mel waaw vraiment sonn nañ ci trop. fas doon lu am solo ci baykat rawatina ci jamono nawet mala yi ñu sàcc dina gàllankoor lu bëri liggéey bi famille Ndour sumboon suñu sukkandikoo si Cheikh nekk kenn ci ñoom. yàlla su tawee ba nga xam ne liggéey bi commencé na ñu jékki-jékki rek sàcc sa fas xam nga ni li ñu doon sentu si nawet bi yëpp yàlla bu ñu jàppale dëgg-dëgg ak solidarité mbokk yi liñ ci mënoon sent séntu dootul mun a am quoi. daaw ci waxtu bi sàcc bi ñu mel amoon na ci jox. caay-caay yi randal ñetti fas ak ay bëy yu bëri ngir li ni mel mën a dàkk population yi sàkku ñu samp ab brigade gendarmerie ci jaxaaw nekk chef lieu communauté rural digganteem ak jox toll ci ñeenti kilomètres. ñu ñaan par exemple benn jaxaaw am benn brigade gendarmerie boo xamante ne bis bu ñu amatee loolu lu mel noonu rek ñu mën a daw jooytu ko foofu ba nga xamante ne dañu mën a am benn suite favorable nag béykat ñëw benn jour ñëw sàcc sa fas dem xam xamoo foo ko jooytu. da nga dem wër ko sonn booy dem nañ tey ba ay côté Kaolack ñëw nañ gisuñu dara franchement c'est désolant quoi. Youssouf Bodian bàyyee ko jox ngir rajo Futurs Médias. RFM li ci yéene kaay Master Office bi ngeen taamu système mobilier ak matériel de bureau informatique salon électronique moo leen di may seen revue de presse Master Office ngir seet bépp ju. yéen kay ñu dalalee la jeex ma tey dara. bisimilah lu mu duggee def ko waaw waaw le soleil yéen kay ne Abdoulaye Wade mii moo diggee woon ne élection yi kon dana ko jëlee ci loxo maître Ousmane Ngom waaw Abdoulaye def na ko ni démb parce que Abdoulaye Wade mii fal na kon kii di Cheikh Gueye def ko ministre des élections moom Cheikh Gueye moom mais moo nekkoon directeur des élections parce que opposition boobu dañ doon ñaxtu ah ñaxtu nga kay ña ba tey am satu sow njëg Abdoulaye Wade mii mooy njaag am sa ci sow si di been ne ngir intérêt réew mi man damaa yaakaar ne Abdoulaye Wade mii warul kon présenté wu déedéet parce que candidature am gi yàqaytama laa baaxul baaxul Abdoulaye Wade bu fi présenté wu dana dugal réew mi ci danger goo xam ne maara day taali musiba mbaaba kumba la ma tey yéen kaay ne Abdoulaye lu dalal xelam kon lay wut waaw amaa dans soxoon ne fal gii nga xam ne fal na ko Cheikh Gaye dalalul suñ xel Moussa Sarr bu LD ci le point du jour ne Cheikh Gueye mii moo ko Ousmane Ngom mburu foofu ko benn lañu parce que ñoom ñaar ñoo lëkkaloo woon organiser élection yi 2007 yi nga xam ne ay sàcc neen la te Cheikh Gueye ak Ousmane Ngom ñoo lëkkaloo waat dégg bëgg a élection présidentielle 2012 yi nga xam ne ay sàcc la ñu ca namoon lii moo tax ba ñun waa LD ñu jàpp ne président Abdoulaye Wade kon lii nga xam ne moom la def bàyyiwul xel benn yoon la xewoon ca 23 juin jëleewu ci benn njàngat te président Abdoulaye Wade lii mu def nii ay nga Babacar Touré Genève ci la ma tey yéen kay ne man ma xalaat mooy Ablaye Wade dem ca ba muy na dem ca waxtu Ablaye mënu fee nekk jëlub constitution def ko comme ko xotti fu ko neexee Ablaye Wade warul toog ba weeru décembre naan ñu candidature am gi baax na wala baaxul Babacar Touré ne ñoo ñuy xamal ne Abdoulaye Wade mii mobilisé na Dakar Ablaye a gagné le pari de la mobilisation ñeeng ñeeng ñeeng patati patata waa mii waa mii yéen xanaa yéen da ngeen a laajul Hosni Moubarak njiital Égypte ga woon kookee nga xam ne la ma mobilisé keroog Ablaye Wade mobilisé wul genn wàll gi ñaari fan lañ ca teg askanam nga dàq ko kon ca biti ah te sax nguur gi bu bëggee mobiliser dajale ay nit mais bu ko bëggee def ko parce que yow nguur gi moo yor alalu askan wi le ah te Abdoulaye Wade na def attention ne xaalis boobee muy jëfandikoo di ci mobiliser du xaalisam xaalisu askan wi la te kenn du wax nag Express News ne caat rapport bu yaanaamaar waaw yemul ca wax kese de parce que daa saaga président Abdoulaye Wade la ilaha illallah dem jaak fam nekkoon kon jugu fa déedéet am jiixi jaxaa kay la indi ci màggat moomee mu doon tudd te am juróom-ñeen fukki at 90 ans caat ne waaye yéen est-ce que Abdoulaye rek moo fi am juróom-ñeen fukki at fii ci biir réew mi 90 ans bu ñenn ñi nag bëggee jël sama kàddu gi jagleele ko Abdoulaye Wade moom mais ñoo xam yéene kaay gi ne caat xam ngeen lan la waxoon na ah? mag mat naa bàyyi cim réew waaye waxuñu mag mu am juróom-ñeen fukki at 90 di fen i waa dig ne ko ma adduna bi yëpp xam na ne njiitu réew maître Abdoulaye Wade ngay moom ngay waxal du dëgg caat na cat di leen xool tontu leen ne leen est-ce que président Abdoulaye Wade njiitu réew mi kese moo fi am juróom-ñeent fukki at Sénégal fi 90 ans policiers yi laata ñoo dooraat caat beneen question caat ne ay junni junni ci ay màggat la ñu am ci mim réew léegi nag sama wax ji ku ko bëgg a jël bëgg koo ko la Cheikh Béthio Thioune def mi ngi ki laas njiital leen ngeen fees yi fa ñuy bindoo ngir ngeen am ay carte électeur te ngeen toog dëgg déglu ma yéen samay taalibe Béthio Thioune ne ki ma war a jàppale tuddaguma ko de waaye dana uute lool ak la ma daan def aha uh-huh. waaw waaw Béthio Thioune dàqul sax ba samp kon dem dem ci élection présidentielle yi nekk candidat maa la ko wax kaddu yoo yee Cheikh ben ko yëkkati ca Dakar Mbay Dakar Mbay Dakar Mbaye nga nekk ca bët Saalum ak Thiès Béthio Thioune ci yéene kaay gi ne fukki million ak benn ak genn wàll ci ay taalibe la am onze millions cinq cent te juróomi <laughs> cunde mba yaasin saagoor ma ca balakoos cheikh bécco cunne samay taalibe cantakun yéen laay waxal bu ñu dajawaatee képp koo xam ne wanoo ma sa carte électeur wala sa récépissé bi wane ne kon bindu nga gi nga xam ne jébbalu nga ko ci man bécco dakkal naa ko laa ilaha illallah lañ doon toppee Youssou Ndour dakkal nañu ko ci impo bi luy loolu laas ne impôt boobee nga xam ne moom la ñu laloon ci ndoddug Youssou Ndour waa ji commencé naa nooy lu xew nguur gi ci boppam kon joxe nañu ndigal fukki banque ak juróom ne leen bàyyi leen jàmbur ne jël xaalis saay bu ko neexee ci ay kontam alhamdulilah njiite tutelle bureau recouvrement de impôts et domaines moo bind lettre huissier de justice maître Jean Baptiste Kamaté ngir mu dakkal topp bi nga xam ne doon na ko topp ay société wu Youssou Ndour moo xam Youssou Ndour head office la wala xippi ilaha illallah ah waa ji ne bu ko defee Youssou Ndour di fay ay impôts ci nu ko mënee ay laa jóge fa dem naa ca làmb jë combat Tapha Tine ak Elton waaw day am samedi bii di ñëw de ah bu ñu sukkandikoo ci Abdoulaye Diaw directeur bu stade Demba ci suñu lamb ba fay bokk ci Luc en co ne semi la bu timis weesoo Tidiane Faye ci la quotidien yéen a kaay ne mosuma xot Pape Morlo xot ko déedéet bopp bi kay laa bloqué père Birahim Ndiaye entraîneur Pape Morlo ne ah kay da nga koo xot te ñun déposé nañ nag recours Balla Gaye 2 ak Tyson waaw ñaari mbër ñaari feem yu wuute Balla Gaye 2 dem Amérique Tyson ko ci Ndakaaru gii lay des barki rasulullah taay si nga Balla gay 2 di wax di wax di wax taay seen ne pat pataaram Balla Gaye 2 yokk po am taay seen wàññi dooleem allahu akbar <laughs> Balla Gaye 2 xam le ban feem la war a bëree ne bu taay seen defee lii ma def ko lii bu taay defee lee ma def ko lee taay seen ne patt pataaral ne la may bëri duma ko waxee denc kon suspense bi ak flou bi allahu akbar <laughs> cay Balla Gaye 2 attaqué taay seen waaf ilaha illallah Serigne Ngagne théâtre kat la ci yéene kaay gi ne Balla gay 2 ñàkkul doole de te mën na bëri mais Tyson dóor la man dóor la xam na dóor bu bëggee am ndam suñu lamb ne Balla gay 2 ku sonal waa Pikine la ah bon benn défaite la fa am ak juróomi victoire ci juróom benn combat Eumeu Sène ko daan Balla Gaye 2 daan Bac Seras daan Boy Sey daan Coly Faye daan Tyson Junior daan Baboy <laughs> dama yemale ko fa walaay laa ñu ma caa teg